sëñ bi ñoo ngi lay gërëm di la sant di la nuyu tur bi naka la. waaw ah, Sidi Mar. Sidi Mar Sidi Mar eh, yow yaay papay xale bi làqu fële ci hôpital bu maam Abdou ca Tiwaawoon. waaw man la waaw. Hmm? Hmm? Ah, Sidi Mar mooy papay xale bi waaw. dëkk fan. Hmm, commune de Mbindiouff. Euh, xale bi nan nga yëgee ni gaañu na. Hmm, man de amul lu liggéey ba wàcc rek di ñibbi ci yoon bi ñu woo ma ni ma waa xale bi nopp la waaw nekkoon dafa tàgg loolu noonu laa ko yëgee mu doon yëg bu kii nag bu metti nag dafa tiis daal moom. lan mooy màndaargal mettit bi. Hmm? lan moo màndaargal mettit bi. maanaam demin bi waa demin bi. demin bi moo kii mu xaw kii kii waaw. lu ko yóbbu woon hôpital ba. hôpital ba dafa amoon feebar man faju ci feebar zone. su ñaata at la toll woon walla ay weer la. non amul woon at amul woon sax weer ay trois jours yooyu rek bi mu juddoo après yaa mu gis affaire bi commencé def ay signes. mu yóbbu ko hôpital Ngembe bi dispensaire bi après ñu jàllale ko fële ngaay bi mu demee ngaay waa ngaay tamit jàllale ko Tivaouane mu nekk fa di def traitement yi def kii bay waaj a génn far yàlla ñëw ak dogalam. Euh, bi nga yëgee ni gaañu na lan nga njëkk a def. kan man xanaa dellu ci suñu borom rek delluwaat ci yàlla rek xam ni kullu nafsin zaa'iqatul mawt waaw ñun yàgg-yàgg dañ koy fekk ji xam ne yàgg-yàgg fi fii duñ fi sax rek di woy waaw bu dul tey di suba yàgg-yàgg dañuy dem te ay jullit lañ tamit benn bant boobu nga wala am na ñeneen moom amoon na mag waaw na mag waaw bu toll si ñaataat presque ay xanaa mooy trois ans mm-hmm. xale yi nga xamante ne ñoom ñoo làqandoo woon denc nañ leen ndax yëgoon ngeen bi ñu leen di denc biñ leen di denc waaw yëgoon nañ leen hmm, teewee nañ ko sax hmm. lu tax lu tax delloo delloowuñ leen ngir ngeen denc leen fi ngeen dëkk walla ngeen choisir foo xam ne foofu lañ leen di denc hmm, ñun mënuñu si waaw parce que dañoom ay kilifa kilifa yi lu ñu décidé rek ñun ci loolu la ñuy ci loolu la ñuy wax tamit lu ñu wax rek loolu la ñuy wax. mais wax nañ leen lu tax ñu denc leen Tiwaawoon. lu tax ñu denc leen Tiwaawoon waaw xam nga niñ demee nii comme suñu borom moo dogal ñoom te bokkuñu fu ñu dëkk suñu borom moo leen dajale foofu ci benn saal boobu xam xañ na suñu borom mi def loolu xam na moom moo nam moom moo xam na lim jëm ca nam waaw xam na lim ca nam moom moo ko xam. lu ci taxawaay nguur gi. nguur gi nguur gi ñu ngi rafet lu taxawaayam ndax bu amee ba léegi nii ñoom ñu ngi ci waaw seetaanuñu benn yoon tamit waaw boobu ba léegi ñu ngi jàpp waaw. taxawaayu dëkk bi. Hmm, dëkk bi tamit bu baax ak mbokk yi képp ku ko yëg àdduna bi kay ñëpp ko mettitu wax dëgg yàlla waaw. ndax fu ñu toll nii waruñu dépasser li nga xamante ni li ñu dund ci hôpital boobu est-ce que waruñu ko woon dépasser ci sa xalaat hmm. ay coupure courant ay court-circuit par exemple ñu ne moo rey xale yi est-ce que loolu waruñu ko dépasser fu ñu toll. Hmm, si waruñu ko dépasser moom hmm, waruñu ko dépasser waaw.